noonu ma gis mbote ma dindi tayu gu jëkk ga te ma daldi dégg kenn ca ñeenti mbindeef ya di wax ak baat buy riir ni dënnu naan ñëwal ma xool noonu gis fas wu weex gawar ba yor ak fit ñu jox ko kaalaak ndam mu daldi dem moom jàmbaar ngir daani mbote ma dindi na ñaareelu tayu ga ma dégg ñaareelu mbindeef ma naan ñëwal noonu weneen fas génn diwu xonq gawar ba jot sañ-sañu jële jàmm ci kaw suuf ngir nit ñi di reyante ci seen biir ñu jox ko jaasi ju mag mu dindu ñetteelu tayu ga ma dégg ñetteelu mbindeef ma ne ñëwal ma xool gis fas wu ñuul gawar ba yor ab peesekaay ma dégg baat bu jollee ca diggante ñeenti mbindeef ya naan peyug bëccëgu lëmm ngir benn ceeb peyug bëccëgu lëmm ngir ñetti kiloy dugub waaye bul yàq diw gi ak biiñ bi mu dindi ñeenteelu tayu ga ma dégg ñeenteelu mbindeef ma naan ñëwal ma xool noonu gis fas wu wert gawar baa nga tuddoon dee te barsàq nga toppoon ci moom ñu jox ko sañ ci ñeenteelu xaaju àddina sépp ngir mu faat ak yi xiif mbas ak rabi àll yi mu dindi juróomeelu tayu ga ma gis ca suufu taabal dañuy lakke cuuraay ruu yi ñu ñu boom ndax seede si ñu doon sàmm ak li ñu gëmoon kàddu yàlla ñuy xaacu naan boroom bu sell bi te dëggu ba kañ ngay nekk àtte bi te feyul nu sunu deret ci waa àddina ñu jox leen ku nekk mbubb mu weex daldi leen ne ñu muñ tuuti ba kere seeni nawle ñëw te lim bi mat seeni nawle ci liggéey bi di seeni mbokk yu waa àddina waroon a boom ni ñoom ma xool ba muy dindi juróom benneelu tayu ga noonu mu am yëngu yëngu suuf bu mag jant bi ñuul ni këriñ weer yu xonq curu ni deret biddiw yi fàqe asamaan di daanu ci kaw suuf ni doomu garab yu yolox di wadd bu ko ngelaw lu metti dee yëngal asamaan si dellu ni basaŋ gu ñuy taxañ tund yépp ak dund yépp randu fa ñu nekkoon noonu buur yi àddina si kilifa yi njiiti xare yi boroom alal yi boroom kàttan yi jaam yi ak gor yi ñépp làqutu ji ci xunt yi ak ci ron doj yi tund yi ñu naan tund yi ak doj yi daanu leen ci suñu kaw te nëbbunu bëti ki toog ci ngàngune mi ak meru mbote mi ndaxte bis bu màgg bi seen mer di feeñ agsi na ku ci mën a rëcc